mu mel ni bis bu mag bii nga xamante ni bii nag moo na ci boole ànd taxawu Madyana moo ko organisé li tax mu organisé bi itam ab association la boo xamante ni bii dañ koo sos ban ko sosee léegi mu toll ci juróom-ñeenti weer ndax ñi ko sos ci mois de mars 2020 defe naa boo xoolee date boobu ak léegi ci juróom ñeen weer lay toll ñu sos ko anam yoo xamante ni bii ni ko Serigne Saliou waxee loolu bokk na ci li tax ñu sos association bu am solo bi ndax manquement yi nga xamante ne bii moo nekk ci Madiyana te askanu Madiyana itam mënunoo seetaan saa bu amee problème rek sëñ bi ci loola ndax mel na ni juróomi forage yi paanoon ci jamonoy ndax mi kenn ku nekk gis na pasteur bi nga xam ne moom la ci sëriñ Cheikh def ak xaalisam bu bari bi ci defoon ak oto yi fi yebaloon yëpp ngir bëgg askanu Madiyana denc ci jafe ci loolu nag lan jàngate ne est-ce que ñun nag duñ xoolaat mbaax suñ bopp ndax dëkk bu mel ni ma jàng fu la may la kër kër gam la may tey boo ko doon jaay mu jar ay millions yu bari nga wëlbati ko saa boo amee jafe-jafe di nga xaar sëriñ ba jaaduwul loolu moo tax ñu taxawal ànd taxawu Madiyana ànd taxawu Madiyana wax naa ne bi ñu ko ci juróom-ñeenti weer la toll ñu composé ko ci fukki commission ak juróom fukki commission ak juróom commission bu nekk am na loo xamante ni bii moom lañ ko euh, moom lañ ko saytuloo pour mu war ko liggéey mais ndaje bi ñu fi dajalee tey dafa nekk commission environnement ak lancé waale kuréel gi ngir mbokki Touba yi ak mbokki Madiyana ak mbooleem fu nit nekk ci Sénégal rek xam ni ànd taxaw Madiyana kat léegi kuréel la boo xam ni samp na ngeen di dox ci yitte yitte askan wi bu ko defee nag mu mel ni ànd taxaw Madiyana ba mu tàmbalee ba léegi réalisé na ci réalisation yu am solo ndax comme ni ko sëñ Saliou waxee Madiane na ku ne xam ne ni depuis fanweeri at ci ginnaaw manqué woon na ndox lool ba ci buuful bi ñu ngi doon jooyum ndox waaye suñu borom dimbali nañu bi ñu taxawee sukkandiku ci ñaani gaa yu baax yi nga xamante ne bii ñoo ñu dimbali ci leen amee mën a taxaw liggéey yoo xamante ni bii mën nañoo taxaw wane résultat boobu tey ci juróom-ñeenti ci mu mel ni ndox moomu. ni mu jafee woon ci Madiane 1 ba 6 suñ borom dimbali nañu ba Madiane 1 ba 6 yaakaar naa ni gisatoo ci jenn soxna soo xamante ne bii day du ak paan di rooti ba ci màggal gi nga xamante ne bii moom la suñ borom dogal mu jàll defe naa dañ doon root ci Madiane waaye Madiane moom suñ borom defal nañu tawfeex loolu nag ñu ngi ciy sant bu baax Serigne Cheikh Mbacke ak mbooleem njabootam gi nga xamante ne bii ñoom la dëkkal ci euh, Madiane te ñu jàppale liggéey bu am solo boobu mu mel ni ndox moomu bi ko xoolee réalisation bi na xamante ni moom la ci ànd taxawu Madiyana def toll na ci 7 millions 250 mille ci 9 mois yi 7 millions 250 mille loolu la ci ànd taxawu Madiyana def ànd taxawu Madiyana bi mu defee loolu euh, ci taw jàpp nalu nag Maaw Rahmati ñu koy nuyu baax di ko siyaare en passage wax dëgg yàlla Serigne Moustapha Dieng moom itam ak équipe bi nga bi nga xam ne moom la àndal dimbali nañu ci réseau bi ba lépp loo xamante ni bii war nañ koo def ci réseau bi itam. ak jàpp ndal am na ci waaye nag am na ak leeral tuuti lu ñuy wax lu ñuy def foofu matériel yi nga xamante ni bii moom la ñuy def ci liggéey kenn fépp ci ànd taxaw ma jànn ci way yi nga xamante ni bii moom lañuy ñuy gas itam kenn fépp ci ànd taxaw ma jànn maawul rahmati li ñu dimbalee mooy ubbil ni roose bi li ñu dimbalee bañ nañ ko sax ba polonniers yi nga xamante ni bii ñooy liggéey liggéey bi sax ànd taxaw ma jànn moo leen di fay loolu nag yaakaar naa liggéey bu am solo la. bi ñu ko taxawalee ba am ndigal ci Serigne Cheikh lan njëkk a def mooy dem ci Touba ci kanam yaakaar naa kilifa yu bari bi ñu demee ci ñoom waxtaan ak ñoom dan noo wax nu na ngeen dem ci Touba ci kanam ba ci sëñ Cheikhu naa sama sëriñ dañu nu baa dem ngeen ci Touba ci kanam ñu ne ko dem nañ ca foog fekk na booba sëñ Cheikh na nañu ci Touba ci kanam ñu waxtaan ceeb ñoom ba suñ borom dogal ñu wax ci wax yu rafet mel ni ñoom ak ñun ñoo bokk liggéey bi ndax am taxaw Madiyana dafa jàpp ni li muy def ci Madiyana Touba ci kanam la war waaye nag Touba kanam su fekkente ni dafa nekk Touba goxi Touba yépp di ko soxla Madiyana soxla ko urgent te amul kenn ku taxaw ngir di ko gàttalu su boobaa jafe-jafe mën naa am loolu moo tax lépp loo xamante ne bii ñu koy liggéey ci Madiyana itam ànd tax euh, euh, ci kanam nañu ko àndal muy euh, jàppante bu am solo mel na ni biñ amee problème fii rek ci Euh, toj-toj bi amoon fii li waral ndox mi arrêté ci boori jàkkay baay jaraaf gi ndox moomu ñi nga xamante ni bi mooy waa Ecotara ñoo bënnoon tiwo boobu biñ ko bënnee mënuñu ca dara waa Ofoor ñëw nañ ci waa Maawu Rahmati ñëw nañ ci suñ borom dogal la tax mu jag ba ndox génnatul ànd taxawu Madiyana moo ko def kon nag loolu taxawaay yu am solo la mel waaw mel na ni ci liggéey yoonu Touba yi itam bi ko Serigne Mountakha joxee Touba ci kanam ngir ñu defar yoonu Touba yi ànd taxawu Madiyana du ni nekkul ni membre la rek ci Touba kanam day dagg ay rosi dañuy dagg ay rosi ba noppi wëlbati ko kuréel gi jaayante waat na ci turu ànd taxawu Madiyana ambuloo ba am solo ngir jàpp ko ci liggéey bu am solo boobu bu ko defee nag ñu mu mel ni ànd taxawu Madiyana def na lu am solo ci ci ci ci ci so ci so ci so ci kii ci neuf mois yi nga xamante ni bii moom moom la jot a def bi ñu xoolee total bi yëpp dafa nekk onze million huit onze million huit cent quatre-vingt mille loolu mooy li nga xamante ni bii moom la ànd taxawu Madiyana dem bu ko defee nag mu mel ni kuréelu ànd taxawu Madiyana mi ngi def appel ngir liggéey bu am solo bi nga xamante ni bii moom na woote muy environnement Madiane SENODES ñu ngi ci tàllal mbooleem kilifa yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci Touba ak ci commune bi ak ci région bi yëpp di tàmbalee appel bi ci monsieur le président wàcc si ci préfet bi nga xamante ne bii moo ko nekkal ci diwaan bi ak sous préfet ba wàcc si ci si ci euh, maire bi nga xamante ne bii mooy commune bi ñu ngi leen di tàllal loxo bu baax ci Madiane SENODES googu. bu ko defee mu mel ni euh, waa Touba it ñu ngi leen ci xaar di ci xaar waa Madiana ak mbooleen ñi nga xamante ni bii ñoo ñoo ñoo ñoo yëpp yor ay association ñu ngi leen ci xaar maanaam ci leen ci kilifa administratif bi ak mbooleen waa Touba rawatina waa Touba Madiana ak waa Touba te kanam itam ñu ngi leen di xaar ci appel boobu ak mbootaayu bale yi itam ñu ngi leen ci xaar ak femme d'affaires yi ak bàjjanu gox yi itam ñu ngi leen ak association yi nga xamante ni bii suñ borom dogal na ñu nekk ci biir dëkk bi itam ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar ci liggéey bu am solo ci liggéey bu am boobu. kon ñu wax ne ñun dañoo jàpp ne ñun jigéenu Madiyana tey ànd taxaw Madiyana bu fekkee dafa sosu dañoo jàpp ne ñun suñuy kilifa dañoo wuy suñuy suñuy jooytu kenn ku ne xam ne ne Madiyana dañ ko tuddee woon Marnayaana Marnayaana boobu tey jii loolu suñuy kilifa dégg jóg sos kuréel gii ba tey jii ñuy wax ndox mi yaana Madiyana alhamdulilah kon tey jii ñun loolu ñun lañ ko sosal ñu ko sosee ndax ñun tamit ànd nañ ko ak ñoom ndax kenn ku nekk jigéen ñi ni ñuy toogee kenn yëngatuwul kon xam ne ñun wàll si nañu kon ñi ngi ñaan ñi nga xamante ni moom la ànd taxaw Madiyana def ci mi mu def ko ci Madiyana zéro maanaam Madiyana na set wecc ndax ñun kat alxames bi nekk ñu ngi bare Madiyana ku fi dugg ñi nga xam ne Madiyana set na mais problème bi nga xamante ne moom lañu ñu am mooy problème mu génne mbalit bi biir Madiyana yóbbu ko feneen foo xamante ne du ñëwaat si ñun kon nag loolu ñu ngi ciy interpellé autorité yi nga xamante ni ñoom mun nañoo saafara loolu muy le préfet maire ak société humaine IGG ñu jàpp si mbalit moom ba nga xamante ne dina sori biir Madiyana ñi ngi ko doon ba tey si biir sécurité kenn ku ne xam na ne jigéen da ngay soxla sécurité ñuy ñaan yàlla ñuy ñaan waa ànd taxaw Madiyana bu ñu jógee si déchet bii si se set Madiyana ñu jóglu si sécurité bi na kenn ku ne xam ne ne sécurité fekkee amoo sécurité sax xel du daal te sunu mbaa kii kat niñ ko baaxee neexuñ ñun waa jigéenu Madiyana bu ñuy jógee si loolu bu ñu jógee ci loolu ñuy dem tamit ci mbiru wér gu yaram kenn ku ne xam nga ni jigéen moom bu njabootam wéree borom këram wér doom wér rek mi ci jàmm bu ko booleekum ndox booleekum sax ak set mi ngi kon nag lépp li nga xamante ne mooy la wér gu yaram ci biir Madiyana ñu taxawul ñu ko ba mu mucc ayib ñu ciy profité ñu nuyu suñu ICP yi nga xamante ne ñoom ñoo fi toogal wàllu santé muy sëñ Lamine ak sëñ ak ak docteur Faye kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen woo jigéen ndax kenn ku ne xam na ne kuréel doxee ku ne xam na kuréel gi bu doxee jigéen ñi noo tax bu ñu xooloon bilan financier bi nga xamante ni moom lañ fi def bu ñu xooloon li fi jigéen ñi def gëm naa ne ñun ñooy man ci kaw kon ñu ngi leen di soññu si pàcc ngi leen di soññu si carte yooyu bu kuy mbootaay kuy comité de salubrité maanaam ku yore groupe set setal yore mbootaay yore loo mën a yore carte yi mi ngi fii boo demee sa présidente yi ñu lim dina la jox ab carte blogu carte nga mën ko di ko jaay sa mbootaay dina la jox ay carte membre nga mën di ko jaay sa mbootaay am na ay carte yoo xamante pour social bi la social bu ko dégg mooy dimbalante takk ñaar fukk la takk 200 la lu sa doole jotewul ci 500 mën ngay joxe si loolu di barkeelu kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp ndax loolu kat moo doxal liggéey bi loolu rek moo mën a doxal liggéey bi kon yéen jigéen ñi ñu ngi leen di woo ci cotisation yi na ko ñëpp matale nañ ko booleeg li nga xamante ni moom la ñuy teggi lii nag nekk doo xamante ni la kenn du ko teggi waaye sëñ Tuubaa moo lay fay kon nag ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp ndax madi yaa ngi suñu saal wax def ko suñu ko suñu laaj jox ci Tuubaa ma dagal fu la fu la doy nga yemal ko fa ndax boobu xamoon ne suñu sant jaam yaa rek moo ko dox a jóg ak jàngale ak jàngale alxuraan mu def université la université bu toll nii ci Afrique am ko jox suñu sant yi mu def fa daal alxuraan bi jàngal alxuraan ak xam-xam kon man jàpp naa ne Madiyana làqu na ci fa yàqu kenn mënu ko yàqati ndax boobaa léegi mën na cinquante ans yaakaar naa boobu Senghor mi ngi fi ba Abdou Diouf ñëw wala Abdou ñëw bi Macky Sall président Macky Sall bi nekk tey kenn mu sa ges Madiyana kenn mu sa séddale ba tudd Madiyana kenn mu sa wax ba tudd ma te li manqué nag bari ba ñu fi dëkk sëñ baa kenn dara parce que santé amu fi li fi suñu sang ma bàyyi ba léegi te li yéen jaar ci Touba amul benn bëgg bi Madiyana du assainissement du courant du lenn fi jaar kon nag loolu dañ koy seere ñi xam ne nii ñoo ko yor ndax xañ na nag président moom xamut fii ci Touba xamut Daaru Xudoos xamut Madiyaana waaye ñi ngaan ci dëkk bi ñoo wax président ñu a gëstu Madiyaana ndax wax kenn ku ne xam ne lu gën ci Touba nekk muy université bi muy Madiyaana population bi dëkk Touba boo wax da jëli Madiyaana gis lu bari kon nag war noo jàppale Madiyaana bu baax ak li tubaab ba di wut dëkk te xool te xool jënd li nga xam ne ndax kenn ku nekk boo jël ci daara sa doom jaar sa daal bi jaar mu la la jàngal alxuraan kon nag war nañoo gëstu mu jàng bu baax di sant sëriñ Cheikh Mbacke son yi bu baax di ko ñaanal ci barke yàlla may ko suñu dugub bëgg jëm yàlla bu baax nag ndax maa ngi woon di dox rek sa rajo moom suñu mun taxaw yaa ngi yàgg te rek ndax di taxawee taxaw ma di ñoom baa lëggéey ñoom dañ faa dem ñu yëkkati xaalis jox leen sant leen gërëm leen encouragé leen ci liggéey bi ñu déglu rek sëriñ Sidi Abdou Lahad Mbacké mi yaakaar ñett kër yi ndax ñu war jàng fi ñëwul si Mbacké fi ñëwul si Sane ñoom ñëpp ñoo ànd takku def ñu tey jii sëriñ si tamit digal leen sant de Touba yi ñu am an taxawu ànd euh, Touba ca kanam di rafet jàpp ci moom ndax ñun ñu kenn ba damay kër doon sëñ Sane bi waxtaan ak ñoom ñoom ñu yëkkati seen xalaat ak seen alal def bi ndax seen carte baaj moo leen ñor di sant nag euh, monsieur le ndax maire bi am na loo xam ne àttan na ko ndax am na loo xam état bu àttan lim ci man lépp mi ngi koy def ban fa demee recevoir nañu dikk na fii xool tiwo yi lim ci mën a def na ko yàlla na ne matériel ba mu solo sëñ si Mbacke na ko wax di sant bu baax préfet bu Mbacke ci taxawaayam ci département bi ban fa demee moom it yër nañu waxtaan ak ñun yebal fi sa préfet ndax ñoom kenn xam amuñu def kon ñu ngi leen sant baax seen taxawaay waaye waa Madiyana ndax dëkk bii ñu noo bàyyi seen dëkk maam ñoo tox si am yaakaar si Touba ñu ne am lu Madiyana ku jàpp Madiyana ñu jàpp la ku xool Madiyana ñu xool la ku tëye ñu tëye la. Madiyana ci kanam nag bu ma ciy wax xam naa ko waxtu bi gàtt na te nemmeet yi bari na. xaj na sëñ àll ni mu waxee yaakaar rek tax mu waxee ma ko noonu waaye su ma jamono woon noonu du ma ñëw wala bala maa naa li ngeen ñu waxoon lépp suñu tubaab suturaal leen ci ba ko te ñu war a ñu xam ne tële nañ bu dee mbirum université bi nag damay mal placé pour wax parce que loolu mbirum privé la te man àndewuma ak nit ngir di ko defaral ginnaawam damaa ànd ak ab laat pour suñu kilifaanu boole la ko fa dugal moo ko fa dugal tey bu ñu ko woon tey lay yem daf sentiment moo ko ci yem kon loolu sama yoon newu ci moom mooy xool ña muy jële fa muy jële compétence am ak ña muy liggéey waaye li nga xam ne concerné na commune bi askan bi di ci lépp lu ci dugg sama loxoom soo ko duggee sama nopp dinaa ci xëy ci góor te loolu yéen xam ngeen ci dara nit nag boo ko bëggee dimbali dañ di jëfe bi bi ko sëriñ bi kenn fekk ko ci mu nekk di fi jaamu yàlla ba lépp ñëw moo leen njabootu seen tubaab yi nga gis bari ñoo xam ne dëkkee wu woon tubaab yi defoon nañ ci dëkk dañoo dem ba laaj ko ñu meew ñëw moom ni la murid yëpp meewoo ñëw bi ñu ñëwee nag adduna fi daje adduna nag yoo xam ne ñëpp kenn ku ci ne amuloo xalaat dafa aju ci kenn te kenn ku nekk bëggoo kenn mer faaw jafe-jafe yi bari dëkk bi bu doon xalaat rek koy doxal mën naa dox ci lu bari waaye dafa bari mbirum biir moo xam ne mënees koo yaatal xaj na lenn li sañes na ko wax lenn li sañes na koo junn lenn li lu mën a nekk la nag te kaw buñ ci doxee moo tax bi ñu xalaatee projet bi nga xamante ne si yaakaar naa ne commune bi ñu ko njëkk a am ci ab tëli te loo xam ne man du ma waxee bakkan te it du ma wax loo xam ne yàlla tax ma dafa wax kenn li ma wax loo xam ne boo ko gëstoo gis ko te wóor na ma dana am ndax tollu ma noonu ci média noo xam ne dama fiy wax loo xam ne bu subaa ma mën fee ñëwaatum tugg wala beneen xew am fi ma ñëw fi di am jafe-jafe dara àdduna jënd ko ndax dama fay fee bokk bari fi njaboot lool macha allah yal na yàlla xeeb bi yàlla dogalee ñu am projet boo xam ne tëri bi njëkk am bu mat juróom-ñaari kilomètre ànd ak assainissement ak i lampam dañ ne bu ñu ko def fenn ndax Madiyana a ne balaa janvier incha allah rabi da ngeen gis dana dem ba dugg ci saam lu bari dana bari tëri yu xotti la waat ngir dem leen dikk di mën a yomb ci boor bi loolu ñu ngi bi ngeen ñëwee ne dañoo bëgg lu ñu dimbali ci mbalit yi loo xam ne day yaatal ngeen ngeen mën a am yu ngeen di jëfandikoo di jëndi ci mbalit yi dama xalaatal ne moo ne ay sareet a te ngeen cee bind ba xam ba ngeen bindee suñ borom dogal na ma loole jox na ma boor bi ne ma yóbbu ni ñeent jox leen ko ñu tàmbali lépp luñ ci soxlaat buñ ko bindee buñ ma ko waxee ma def ba ma ngi nekk àll ñeen ma jox xam naa dañ leen bi ngeen di boole it éclairage public ci seen kanam ak soxna say nii la leen wax na leen man la leen booleel nan xool nan gëne won chef di équipe bi ba ñu ñëw mën na ko ànd na kii lu na wax ci Kourou Madiane ba tey sama loxo la ne na wutut ci loxo mi ngi am góor te bu soobee seen bu sama bëgg a rëdd dana yegg man nag damay lancé appel lii nga xamante ne si dëkk bépp ko bokk na nit ñi yeewu te xam ne. lii rek mooy dëkk nit ku ne da ngay tal sa bopp tal sa bopp nii Madiyana ca kanam def mooy dëkk Touba ca kanam dëgg la naan baax na mi ngi doxal waaye Touba gépp la bëgg te laaj bu muy bi li bari bari bari dafa mel ne fi doon yi ndax travaux yu bari te dëkk benn tool kenn li wér duur na ay jàmbaar lañ te mën ngeen a xaar waaye waxtu woo bi ñëwee mën naa métti waaye nga ne ci biir fekk la ci digg la moo gën na dëkk bépp roy ci yéen te xam ne nit du mujjul man ko te nit ki dëkkuwaayam ak environnement moo ko war a defaral boppam ba nga ko tey fekk fekk ko ci yaakaar a fi nit ñi yaakaar joojee du mën a tas mukk nit da ko see xam ndax ak ayoo waaye nañu fexe ba bu ñëwee ñu tamit nañ jotal jotal gi mooy bay ci sa wewu tànk kenn ku ci nekk la nga mën ci liggéey ci sa gox nga def su ko defee lu commune bay doon luy néew ak a bari ak leneen mbootaay bu ngeen di dégg bu mën man su ma amee lu may na jafe na euh, ma man ci lu bari ndax am na loolu yaakaar naa ne ci ku mel ne préfet bi ci lay gën a gaawe waaye li nga xamante ni si man personnel ci sama loxo liggéey naa ko ci te defuma ko ngir Madiyana kese. te dama jee gis lu ma naqari dama xam ne war naa mën a jël jeex ci dëkk bi ma di ci bay sama waar boo wóor na ma ne fii doon nii mi te dana sotti mboolem li nga xam ne jàppoon nañ ne actuellement nii moo gën a indi jafe-jafe ci baar yi muy sareet yeeg borom sareet yeeg yi ngeen di jiñ programme bi ñu jël ci ñoom bu noppee ndax defaral nañu ay matriculation yoo xamante ne si bu paree sareet yëpp a koy am dañ leen di numériser suñ noppee identification lay am bépp service def na ko sud noonu dañ koy mën a fekk fa mu mën a dëkk xam ne diw ñi moo ko def pareetu ñu benn gone ko mesure amoo fukki ak juróom-ñett ñu di la joxoon sareet di ko laaj laaj ngeen ci dëkk bi loolu la neex def loolu day tax ñu ngi ci équipe bi ñu ngi ci programme bi balaa yàgg dara dinañ ci woote réunion préfet dana woo commandant gendarmerie danañ woo commissaire ñu bind arrêté yi joxe ko distribuer matriculation yi la ca des mooy population bi ñoo ñuy dimbale xaw ñoo jege tuuti am na ci loolu ñoo ñu ci mën a informer